toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. je suis Sénégal je fait yépp di l'homme incontournable l'infatigable Qui nga personne ne peut gagner le Sénégal sans lui. nga xamni sama kilifa la sama référence la bu ñuy wax kilifa ak référence kenn du tok ni def ma li nit ki yaay incarné li tax ñu def la loolu té il l'a incarné monsieur le ministre monsieur le délégué régional Abdoulaye Diouf Sarr sa njabot sa lion sa jigen ki nga xamni dama fas tay tey nga tok ci kër gi ma lay ci naaj bi muy Adja Yoni am mo ñew tay fekk si le fii je pense qu'aujourd'hui, nous avons un échantillonnage. Moi, j'ai fait les mathématiques. La population de Djoussar au niveau national, c'est un échantillonnage synonyme des amis de Djoussar. puisque j'ose dire que tout le monde est ami de Djoussar. monsieur le ministre du le président de la république la région de Dakar la région de Dakar n'dala. Thiès Saint-Louis fi lay Kaolack toutes les régions ce n'est pas ex que le président vous a choisi comme délégué régional de la région de Dakar monsieur le ministre je vous dama ànd ak yow ngay dem di jëli ay parrainage jabaru ki nga xam ni président de la république dafa naroon jël parrainage respecté lool indi ko fi yow par respect nga ne ko deet way jabaru Amadou Ba du ñew fi bayil ma ñew waye ba démé bokku ci délégation ba dama fier ndax témoignage Amadou Ba wax néna man ak djub sar du ñu ñaar kenn la dama bëgg kuma ñaanal na ma ñaanal bayima ma ak Abdoulaye djub sar li nëbboo ëpp ni feñ wax ko ñëpp di dégg maa ngi toog monsieur le ministre yaay ki nga xam ne bëggoo ko doyadal je suis cadre te adjan Ngoye dama la bëgg wax ne bama ma bokk ci Ablaye Diouf sardou tay mom mo monté le au niveau de de de de de de Rufisque j'étais la secrétaire des cadres du département de Rufisque je suis sociologue on ne peut pas faire la politique sans sans la sociologie je suis aménagiste on ne peut pas faire la politique sans l'aménagement qui dit aménagement parle de planification. Eh bien, j'ai été à Lyon-Moa et j'ai été sanctionné par un DIA en aménagement et planification du territoire. Monsieur le ministre, ce suis neexoon la top. xam nga monsieur le ministre nit wax na ba am de tank. monsieur le ministre ce manège la oui, je suis parce que tout le temps les théories c'est bon la conceptualisation c'est bon mais le travail rien n'est plus beau que ça que ma vais dire. monsieur le ministre je suis ni la sa gi département de l'office. devant tout le monde ba nga candidat nga vous, kilifa Yangane, les identités remarquables de Rufisque le tiers des femmes sont là-bas Mais Adia Kinege, Djoglen, jóg monsieur le ministre gis ni président Macky Sall da leen président Macky Sall yóbbu na leen màkk jox chargé de mission ni CDE chargé de mission au niveau de la présidence dan ma dénk je suis ma dénk dama koy téye monsieur le ministre Je na ñoo xam ni fal gi leen fal may dëgg la ñu nommé la léegi directrice une ful topp la wala nga nekk léegi ministre une ful topp la man ñi ñi dan maa topp te yàlla rek tax macha allah le ministre li ma yem man li ma yem mooy lenn mooy yof kii tey monsieur le ministre xamoo échec xamoo défaite waaye li am na nangu di ndogal yàlla ndax c'est partout dans le Sénégal monsieur le ministre du ñu yem moy nekato maire te tey la ñu ñu gëna bëgg lii nu yem monsieur le ministre man Adja yónni may ngi tak sama diggu top sa ginnaaw. très bien di la liggéeyal ci du ma la laj ñaar dërëm. merci Adja ndaxte kuy liggéeyal nit nak dang nga koy jëfe mënuma wax lepp waye nak may xamal ñi fi nekk ñep ni ku ne tay leader bu ne président bu ne responsable bu ne ak lo sa dayo fu mu tollu de de donner des arguments convaincants convaincant pour me convaincre nit ki parce qu'on est en politique loolu exemple bi ma ciy joxe ba ñu waxu candidature j'ai dit que ni dama jël sama affichement affiché à Abdoulaye Diouf Sarr c'est mon choix Dagana je le connais je ku engagé wu mu jël ma le pourquoi. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de